Ahmadu Bamba kenn la Ahmadu Bamba kenn la Ahmadu Bamba kenn la salaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi bu ngeen gisee sunu jëmm taxaw ci écran bi yor kàddu gi di wax mooy bis bi nga xam ni murit ci dëkk bépp ci ndigalu Serigne Saliou Touré baaxoon di ko amal muy bisub kennal Serigne Touba ren nag Serigne bi joxe ci ndigal muy dëppoog le 6 mars 2021 fi ci rond point Normandie ñu ci woo mbokki jullit yépp fep fu fu kaddu geeg rek wote bi na ngeen xam wésu nako ci ñu and magal kenn Serigne Touba gi ci njital nak jëwrin Serigne aliou Souaré ak mbooleem kurelu kenn Serigne Touba gi ñu ci wo woo qasida xasida baawu bàyyiwuñu kenn rajas kurel. njangum aw lu mu ci mëna a doon rek ñu ci wo ñëpp rek di ñaan ci barkeb Serigne Touba Cheikh Mountakha Bachir yalla na fi yagg te wër di ci barkeb Serigne Touba Cheikh Saliou Touré yàlla na fi yàgg te wér ku teew yàlla na wér ku ñàkk yàlla na am ku am yàlla na yokk ku faat yàlla na ba jana yàlla na san may ñu fekk ko te san borom génn fi jàngoro ji jàngoro ji nga xam ni moo tee murid yi murid yi murid yi laay wax sax firi waaw na fi jóg ñu an liggéey Serigne Touba ba faw barkeb xasida yi barkeb Taysiir